Assalamualaikum warahmatullahi taala wa Assalamualaikum toutes les patriotes yi nek ci rew mi ak yi nek ci diaspora bi man de Jagne Solution vice coordinateur fu Medina bok ci mouvement des patriotes de Dakar and ci deug pour jàppale le président Ousmane Sonko di talibé Cheikh di ñaanal sam yalla sama serigne serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu di wax soppee maam Abdou Aziz Sila da baax ak cheikh al islam maam Baye Niass am référence bu ñuy wax nag Serigne Saliou Mbacké di demandi pardon ci bépp patriote bu nekk ci réew bi ak nekk ci diaspora bi man nag lañu invité woon jàkkaarloo ma dem fa am lu ma fa wax mais defe naa ne polémique bi sax jaru ko bu dee dama juum maa ngi toutes les patriotes c'est ma première émission ma dem ci jàkkaarloo di wax invitation bu mu télévisé boobu c'était la première fois am kàddu yu fa jóg gis naa commentaires yi ak yeneen mbir yi ci am mais ba tey comprendre naa parce que politique ak lii ñoo ànd muy bruit di wax ne tamit am na saaga yu fa jug ci kilifa gu mag ñu toogoon ak moom ñun nag duñ ko tomp parce que ñun yareewuñ ñu loolu ba pare yareewuñ ñu ko mooy sénégalais dafa am lu fi manqué muy xale day yaru te yar boobu noonu defe naa ne gis nañ ko keroog ci émission bi ne n'a fayu nag mais je fayu parce que dafa am lu ñëpp di je suis au Sénégal ak li ñuy wax ci Ousmane Sonko dañuy saga dañuy def fekk nekkul ci ñun ñun am yar am diiné am ay kilifa yu fi nekk kon duñu leen ci ba pare archive da fi am war nga ba ko fi ëllëg buñ la tegee boo fi nekkee boo fi nekkatul dinañ la mën a tegal sa émission yooyu si sa njaboot ñu koy gis te duñu gis xale bu tuuti di saaga mag loolu xel nangu ko loolu du valeur te Sénégal loolu sunu maam yi am na luñ ñu ci wonoon te defe naa ne man jullit laa taalibe cheikh laa ba pare nag di ñu yar ma ci diine ma taxaw tele wala si feneen di saaga duma ko def te dara duma ko jaral

plus que jamais mon adhésion à PASTEF et mon engagement auprès du président Ousmane Sonko. Si vous me connaissez, regardez mes vidéos passé. Depuis septembre, je suis wax ci réseaux sociaux je live Je def tamit YouTube youtube bobu ma doon def ku les précédents passés ci live ni ma ci wax ci youtube bi plus de huit vidéos ñu ngi ci yoo xam daan naa def live te mosuma saaga te du dara parce que man gor laa te jullit xale dafay yem ko yemloo loolu moo def live bi ku ko que youtube bi solution ku solution di nga gis toutes mes vidéos passées il ma def ci opposition bi doon chef de l'opposition presque depuis septembre 6 septembre la ko né opposition bi Ousmane Sonko moy l'opposant kon mom lañ waron jox titre premier opposant Il Idrissa opposant parce que opposant du nopi nopi. Il a été ko archive archive yoy nak lay baye xel ba duma ci waxal lu ñaaw wala duma kon loolu laa amoon lu may wax di wax nag man Diagne Solution sama engagement sama détermination ci président Ousmane Sonko kenn du ko changé di wax na nag keroog tamit ci émission bi am na lu ñu fa wax à propos de Adja Sarr ba la fille bi nga xam ne ne am lu ma doon tuumaal man jigéen a ma jur ma am njaboot ju jigéen macha allah am ay tante am mam am lepp ci jigen kon duma touti jigen jigen dama koy ormaal ta dara mënul tax bama touti jigen peut-être koko dafa comprendre wala dafa mal compris sama intention duma ma sous-estimer nit loolu moo tax def live bi gatt na nak mais nak Sénégal aji rabi lim fi def muy instabilité bi fi nek limu apporter ci xelu nit jiixi jare ak jaxase yi fi am ci réew mi aji sar momu moko indi te lu ko indi muy aji sar momu te aji sar momu mo jaxase lepp kon jigen ñu mel nonu war nañ leen démasquer war nañ léral seen bir ba tay ji ni bi am jafe-jafe ku nekk tay ji ni bu doon nelaw à 100 pour nelawatul à 100 li jëm ci assemblée li nara xew ba légui amul kenn ku tok Sénégal instant bi sa xel amo ci lu loy ñaaw njort lu ko waral ci ben xalé bu ndaw def proposition yi wala def euh, mbir yi mu def ni ma ngi leen wax nañ ak dal Sénégal jàmm moo fi xew nañ def lépp ci jàmm bàyyi lépp ci jàmm ba ñun ñëpp ñu delluwaat ci jàmm feebar bi fi nekk rek dafa doy sëkk ñu xeexee ko di wax na toujours derrière le président Ousmane Sonko du daw du ma dellu lépp lu ci gis wala lépp dama ci contane sante ko yalla parce que damay xamné ne rek sama intention sama xol li fi nek moy le président Ousmane Sonko te dana ko xéxal nak duma ci dellu ginnaw parce que nak politique ak lii ñoo and képp ku ragal jaru ngay dugg ku bañ ku la wax lula ñaaw jaru nga ci dugg ku la bañ ku la saga jaru nga ci dugg politique mo and ak lolu mais nak and ak yar ak dal ak tay ba nga xamné ne buñ lay wane sa archive du ñaaw wa alaykum wa rahmatullah salaamun xawlan min rabbi raximin salaamun xawlan min rabbi raximin salaamun xawlan min rabbi raxim yal na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci àdduna bi def ko ci njaboot gi yëpp feebar bi yàlla jëlee ko fi yàlla bu mu ñu dal yàlla bu mu dal suñu njaboot yi ñi mu dalit yàlla na leen yàlla yëkkati ba ñu delluwaat suñu jàmm réew mi tamit liñ fi woote nii nañ teg lépp ci suuf parce que ay kenn du ko yee bés boo ko yee dina yegg foo bëggutoon mu yegg wa assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh. Dina ñëwaat nak semaine prochaine ñëw nak waxaat nak ci live yi te dina ñëwaat tan bu may ñëwaat nak dina am yu ma petroli, si sunu pétrole yi némé ko tour yi suñu phosphate bi inshallah ba benen yoon wa assalamu aleykum wa rahmatullah Diagne Solution merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup